ay maqaam yàllaaw bismil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dool dinoo ay maqaam yàllaaw auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabi lumi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima auzubillahi bismillahi ini wàllu yàlla téléspectateurs yi nga xam ne yéen a baaxoo suivre seen émission bi nga xam ne lépp dafa aju ci jotaayu xam-xam mbégte la ñu am tey dellu siwaat ci beneen numéro waaye seet siwaat suñu xarit suñu jaatige suñu jigéen macha allah bi koo xam ne àdduna wërngal këpp xam na ko dootuñu ko présenté muy soxna Kya Aidara Mboup ni ñuy def rek mooy dañu koy daal di nuyu ziar ko daal di ko dalal ci biir jotaay bi bala ñoo yegg ak moom ci laajante ak tontante incha allah rabbi kon Kya àdduna ngi lay ñu ngi lay nuyu di la waaye itam di la dalalaat ci bisimilah maa ngi nuyu yàlla subhanahu wa taala nuyu yonent bi sedd bi sallallahu wa sallam nuyu sama ñaar waajur sama papa ak sama yaay comme chaque jour ma ko waxee parce su ma gis nga ne Sonakia Sonakia am na ku ko juddu am na ku ko indi fi àdduna waaye sama yaay sama papa maa ngi bu baax a baax wa taala ñu nuyu àdduna bi yëpp di nuyu kilifa di nuyu kilifa aada sëñ Babacar Sall soxna Kya Aidara Mboup ci nuyoo bu am solo boobu macha allah rabbi waaye itam ci siyaar bi tamit macha allah yal na yàlla euh, jotale yool bi ci daraja Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu mel ni tey ji àdduna bépp ñu ngi doon laaj ana soxna Kya Aidara ana soxna ay Aidara man leen leen de xam naa ko ci soxna Kya moom xam naa ni weeru koor mm-hmm. war ma ji mu àndal tax na ba soxna Kya moom du liggéey weeru koor mm-hmm. waaye tamit am leneen loo xamante ni tamit suñu borom dogalaale na ko ci mm-hmm. diggante bi mm-hmm. kon loolu itam dama bëggoon nga indil ci leeral askan wi xam ne saa su ñu ngi lay bàyyi xel di la seetaan rawatina say soppe say am di jàmm say wëlëre ak ñi nga xamante ni ñu ngi lay yaakaar gannaaw bi ñu yaakaar yàlla ak yonent Fapal allah bi ñuy liggéey parce que li ko weer koor bi ñuy liggéey weer koor yàlla yëpp la mu tëj su ma wax yow liggéey rawaan la nga def Mm-hmm. yàlla subhaanahu wa taala yëpp la mu tëj mm-hmm. seytaane rawaani yëpp la mu tëj mm-hmm. benn weer rek la méttul guddul méttul mën nañ ko def ko jox yàlla di julli di mu mel ni kon nuñ ko waxee rek weeru koor moom du koy faral di liggéey ku la xam wala mu miin la xam na loolu ci yow waaye itam suñu borom ak i dogalam ñu gis ni wax dëgg yàlla euh, si diggante bi mm-hmm. ci biir weeru koor gi bi mu teroo ba am ay fan mm-hmm. ñu yëg ni sa waajur wu góor mm-hmm. di suñu waajur ñun ñëpp di suñu xarit maag Moussa mii eh, suñu borom dogal na la gën ca moom ana tey jii yow noo noo dundee loolu ak noo ko noo ko noo noo koy indilee askan yoo xam ne saa su ne ñu ngi lay bàyyi xel maa ngi nuyu yàlla subhaana wa yaa wahab yaa yum yaa juutalal war kiram yàlla tif kabir maaliki yawmi diin masawla masamba till I could join you ala mu doy waar lool ndax wax dëgg yàlla ñàkk waajur dafa dafa metti lool waaye ci jamono bi mu ko ñàkkee wax dëgg yàlla doon lu doy waar mu doon itam ku nangu dogal ndax nangu dogal moo tax bi loola xewee tamit mu nangu ko waaye tamit santewaat ko suñu borom subhaanahu wa taala moom mi nga xamante ne mooy aji ki ko fi indi woon aji tam ki ko fi indi woon moom aji ki fi indi mboolem tey jii ñun ñu toog di wax ñëpp ñun moo ñu boole woon ñun indi ñu fi kon bu fekkee ne suñu borom dogal na ci ay dogalam ba loola xew fi ba yëpp weesu ba ñu romb ñeen fukki guddi yi mu amaat yéeg-yéegu delluwaat ci li nga xamante ni mooy sas wi nga xamante ni moom la ko suñu borom sas muy mission bi nga xam ne ci la nekk muy maanaam li nga xam ne moom lay liggéey muy xobam yi nga xam ne mi ngi koy jëli jee ba Mali ak liggéey bi nga xam ne jaamu yàlla yi ñu ngi koy xaar ci moom kon mënta ñàkk itam ñu ñu ñu laaj ko ci waaye xam naa dina métti lool ci xol. Mm. waaye ñu siyaare la ko. Mm. waaye ñaanaat yàlla suñu borom. Mm. moom mi nga xam ne moo ko fi indi te yóbbu ko. te ñun nii tamit kenn du fi des ñun ñëpp danañ dem incha allahu rabi taala fa mu tëdd. yàlla na ko gënal fi mu jóge waaye tamit noo ngi ñaan saa borom taas ñu ci barkeem. ndax war a lool. guddi laylatul qadri tam dig laylatul xadru bu mhm. murid mhm. yow ngay taalibi sëñ Babacar mhm. waaye sa waajur moomu doonoon taalibi sëriñ Touba moom ci bésu laylatul xadru murid yi ci la ko fi suñu borom jële mu doon loo xamante ni am na ay tegtal yu mu wund yu mu wane yoo xam ne moo tax ma ne kon ñun ñoo ngi ñaan yàlla mu taasuñ ci barkeem ndax loola ko amul barke amul cër ci suñu borom weeru koor rek doo ci génn àdduna waxuma laaj nag tombeeg bésu laylatul xadar kon noonu la koy siyaare waaye àdduna wërngal këpp tamit ñu ngi la koy siyaare ñu ngi la ñi ngi bokk ak yow tiis wi ñi ngi bokk ak yow nakar bi ñu ngi bokk ak yow tamit mboolem yoo xamante ne rek macha allah rabbi rax ci diggante bi di ko siyaare tamit sunu waajur baax a baax macha allah may fi mu toll émission bi émission yàqu waaye def ci bëri loo xam ne ci kiyaa ci at mi da ko waxoon mm-hmm. ci suñu jotaay yee weesu mm-hmm. at mi nga ne ñu mooy atum nuuru la ma bëggoon nga dellu si waat ci tuuti ñu am lu ñu ci fàttaliku waat tuuti bala ñoo jàll. ko mm-hmm. Talla kontaan na. Mm-hmm. yàlla mu fay na. allahumma amiin. bakran bas la fatiha baka laa ilaha illallah comme ni nga wax saa kenn nekku fi kenn dëkku fi. Mm-hmm. sama papa ku baax la woon. nit yàlla la woon. ku bugg njaboot ku njaboot bu ku julite. ku ragal yàlla. moo tax am nañu suñu feeb suñu suñu dee mm-hmm. dinañ feebar ba bëgg a dee mm-hmm. il faut ñu wuti ñu jàngal leen yaasin pour ñu mën wuy seen borom mm-hmm. alhamdulilah rabbil alamin na gàcci gàllam mam bu ba jël dorobe bàyyi bu baax laa yore woon ku bugg njabootam ku bugg màggam ku bugg mbokkam ah loolu yomb tamane tout temps internet bi nit ñu profité si seen waajur yi gis waat bu beneen àdduna man sama papa sama fierté la woon ku baax la woon defuma benn affaire sama yaram mm-hmm. dafa bëggoon ku jullitee mm-hmm. dafa bëggoon ñu julli ragal yàlla yëpp nga def si àdduna ne nekk yàlla defal ko ka ragal yàlla ak dëgg ak jub ak jubu lañ dëgg mm-hmm. nee na dara bu mu fes sa bët nga def benn affaire bokk si yow mm-hmm. parce que di nga bugg di bokk famille bu baax macha allah si ñaar côté bi yëpp waaw moo tax ma ne maa ngi nuyu waa adduna bi yëpp ñaanal ma sama waajur bu góor bi gën a adduna mm-hmm. yàlla xari ko adduna fi daw si yàlla xari ko adduna fi daw si yàlla xari ko adduna fi daw si euh, comme ni nga wax léegi dixième koor weer bi mu dem tomb ba six jours mhm. euh, sama waajur bu góor bi génn na àdduna mhm. yàlla nee ne koor bi dixième jour jéggale balke mhm. ubbi buntu altine bi yëpp waaw après tombé bis lee la cadre bi suñu dugg feebar bi dara jantu nga xam ne rek yàlla dogal bi ñëw na di ko gëm di ko wax moom yàlla subhanahu wa taala jërëjëf waaw loolu laa mën a wax après maa ngi nuyu kilifa Sénégal yi daa man soo nekk yaa bugguma sama vie privée trop trop vie privée ba sama yëf di ko teg bëgguma ko yeneen vie privée ko teg ci internet jàppale ma sama client yi nekk bitim réew yi jàppale na ma ñi koy yëgg jàppale na ma sama dëkkandoo jàppale na ma waxtaan ñi la jàppale wax jàppale nañ na sama bokk papa sama yaayu papa yi yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm mu doon lu am solo ni nga ko waxee léegi lu baax moom ku la ko defal sañ nga koo gërëm sañ nga koo sant ndax woowoo leen ngir ñu ñëw mm-hmm. jàppale la waaye yéene buñ am ci yow waaw ak ku ko yëg rek ak kóllëre gi mu séq ak yow ak séq si di ndax fii ku fi ku fi mës a ñëw di nga xam ne nit kese nga xam ne nit ku baax la nit ku oyof la la ci njaboot maa ngi koy ci suñu bu ñu seetloo suñu jotaay yu weesu yi maa ngi nettali loo xam ne man ak musaa mi toog la ko mm-hmm. net waxandoo woon fii ci suuf ci bunt kër gi mm-hmm. image boobu ba tey jii dafay reflété ci sama kanam keroog bi ma la wooyee téléphone nga ne ma sama papa ñibbi na mm-hmm. image boobu laay baat fàttalikuwaat ba tey jii nii nii nii ci moom mu ne ma yow sama nijaay nga dénkaat naa la kiyaa dénk naa la xale yi kon loola li ngay wax ni loola da koy firndeel macha allah ñoo ngi ñaan sama borom xaare ko ca dina gën a kawe waaye taas ñu ci barkeem ndax nee naa barke juddoo na fa ñu dellu soit tuuti at mii ñu nekk bëri na yoo ci waxoon yoo xamante ni buñ ko xoolee dañuy faral di wax ni wax moom mu nekk suñu borom rek lay sot waaye kiyaa bëri na loo waxoon ci at mii mm-hmm. ñu ngi ciy teg suñu bët tey la ni woon mooy atu nuuru laay bu mm-hmm. indi ñu ci tuuti ñu door a dugg ci biir jotaay boobu dëgg dëgg bismillah ko ba tàlla mm-hmm. mm, tout le temps suñu génnee wax benn wax mm-hmm. dinañ ko xool ba pare duñu ñooree wax neex na si làmmiñ rek ba làmmiñ comme làmmiñ kaxataar la rek comme léegi nii ci Sénégal yi di waxare wax neex noonu du noonu dinañ jël après ñu jël kuruus bi di ko xool man su ma waxtaan ma ngi waxtaan ak borom xam-xam yi waxuma ñu amul xam-xam waxuma ñu am gàtt xam-xam borom xam-xam lay wax surtout année bi yëpp yàlla subhaanahu sax mm-hmm. am na nabi bu ko moom mm-hmm. année bi yàlla sax am na nabi bu ko moom wax na année bi amee nabi la ñu mm-hmm. parce que lu tax ma wax loolu dañoo ko xool ñu ñu ko xoolee xale yi génn ko ne accident yi dinañ bare si sorti Sénégal bi accident yi dinañ bare ci biir Dakar mu jaay lakk kër yi dinañ bare nee na prison yi dinañ fees cooy dina bare fitna dinañ bare. Mhm. même nit ki ak nit kam seen biir yi. Mhm. day bari problème si ak day kaaw yi. wala wax ko waxul loolu. Mhm. macha allah mu mel ni tam waxoon nga fi ne tey jii président de la république am na ay nag yu mu war a jënd. waaw def ko ci sortie réew mi yëpp ci sortie yëpp. waaw loolu nga waxoon est-ce que am nga ci résultat boo xamante ne wala dégg nga ci dara fi mu toll nii loo xamante ni boobaag léegi dikk na ci yow. Talla daxam mm, buur Sénégal mhm. ak kilifay Sénégal mhm. am na ñu la war di la laajoon mhm. Sonakia yaa ko war a def ko ñun ñoo ko war a def man chaque jour ma wax benn wax laa wax am na ni ma mun a def am na ni mu mun a ko def jigéen fi nga yem sa xam-xam foofu la nga ko yemale góor ni nga yem foofu la nga yemale mais yow mun wax yépp laa xam yépp laa mën a def ñun gis-gis lañ yore suñu neexee ñu yemale ko suñu waa kër yi hmm. ak suñu doom kese ak suñu wax jabar yi mais defuñu ko dañu ko génne tasaare ko hmm. wax ko adduna bi yëpp li war a xew si année bi hmm. problème yi war a xew si année bi pour que président de la république ñu génne sarax yi nak yi ñu leen wax ñu génne ko sorti Sénégal yëpp man soo nekk yaa sax woo nañ ma fi wax naa ko mënuma ko def ñu xool ñu ko mën a def Santige ñu ngi fi. Mhm. Joolaay ñu ngi fi. Mhm. Mangaay ñu ngi fi. Mhm. Lébu ñu ngi fi. ak leneen ak leneen ñu ngi fi. ndax am alquran dëgg la. mais aada ak cosaan tam. total la dëgg la de. wallaahi ndeysaan. dëgg la. mais aada ak cosaan dëgg la. ndax am population yi souvent su ma wax eh, sarax sax. am na ñu ko génnee. mais am nañu duñ ko nangu génnee. mais am na ñi sax xam nañu sarax Sonakiya. parce que Sonakiya du fen. depuis ma dugg si internet bi mm. ni ma musul wax ba tey méngu na ak sama sama mbir yi mm. musuma wax mu daanu ko musuma wax mu yëg ñi mm. ma wax rek loolu may am si kàttanu yàlla jërëjëf soxna kii yaa Aïdara Mboup ci leeral bu am solo boobu kon nag euh, président de la république ñu ngi lay soññaat xam nga si génne nañ ko génnuñ ko mm-hmm. mais war nañ ma laaj ma xam nga génne nañ ko ba génnuñ ko yàlla moo xam kon nag ñu ngi koy soññaat bu baax a baax moom la président de la république Macky Sall na seet saltige yi mhm. seet suñu mbokk yi nga xam ne ñoo yor fétiche yi ak bagage yi te ngànk réew mi ndax alxuraan ku ne xam ne ni dëgg la waaye diine moom foo ko fekk dafa ànd ak cosaan ak aada mhm. kon ñu xool mu xool kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk réew mi mhm. ci wàllu wu ne ñu jéem a jël sacrifice yooyu noonu ñu jéem koo def ndax defe naa loolu méttiwu te ku ko xool xool jamono yi tournée économique bi bii muy def li mu làmbool yëpp dafa bëri suñu suñuy nawle faatu nañ ci ay journaliste dee nañ ci ay caméraman dee nañ ci ay chauffeur dee nañ ci ba bërki dem woon jaay Ablaye Mbaye peex ak ña àndaloon ci seen oto ba ñu def ci choc bu doy waar boo xam ne yàlla leen suturaal mm. ak dogalam kon nag le président la République ñoo ngi koy ñaan en tant que des citoyens da mm. waslu ak te jóg xam ne askan wi la te ñoo ko fi tegoon jënd ay nag def ko ay sacrifice defe naan loolu yomb na kon ñoo ngi koy ñaan mu jóg taxaw ci biir loolu a ko ne woon nga ni fi mu fa dee yi dina bëri ci géej gi. ba am na ay sarax yoo ci joxe woon. waaye buñ ko xoolee ci ci ci ci ci ci ñaari ayu bés yi tàngoor bi dugg see ci biir réew meeg léegi. li fi dee ci ay doomu aadama jéggi na dayo ban pexe lañ ci mën lañ ci lañ lañ ci mën a taxaw ba ba mën a sauver askan wi nga xamante ni mooy njaboot gi suñu rakk yeeg suñu mag yeeg suñu doom yeeg ñuy dee ci géej gi. Mm-hmm. waaw. daa mu xam-xam Sénégal <laughs> neexul. ndeysaan walaay wax dëgg. su ma waxee rek ñu ne ëpp soo nag yaa commencé ah, ah, Sénégal de. man yàlla rek laay ragal. walaay ndeysaan. yàlla subhana bi ma sax moom moom sama ruux bi. Mm-hmm. su dul moom ragal ma kenn. walaay bi lay talaay. ñu sant ba wax respect ak teggin baax na. Mm-hmm. sa morom yaa sa morom papa ak borom dojaaw yeex yi. mais mm-hmm. soo nag yaa ragal. xam-xam Sénégal ñi ko ñi ko xam. ñoom amuñu kàddu ñu xamul tous ñu am kàddu kàddu fii mhm. Sénégal ñu sol yëre yi ngànday mhm. baxane bu ngànday mhm. mu soroy ngànday wax bi nganda nganda fekk na suñu tëddee nag duñu nalaw leer nga wax de <laughs> daxam président Macky Sall meroo ko blâme ma dara alhamdulilah saa ñu génne wax même ni ni sama waajur génne def nañ ma mun ma ko lu ñaaw chaque ma mhm. wax loolu ñaaw mun ma ko wax bu ñaaw ndax xam lan la ko mën a wax mun mhm. naa ko jàppale comme mu ñu wax benn jour soo nekk yaa su ma waxee nit ñi ngi la déggul sa wax yi su ma ko wax yëpp di am mhm. su nga wax ñun dara yoonul nit mu waxuñu ko bu ñu wax suñu vie privée si internet bi man bugguma ku ma tooñ papataan du ma tooñ kenn bugguma ku ma tooñ mais du ma tooñ kenn mais ku ma tooñ tamit sama lii laa la dugal <laughs> waaw waaw ko basaminte eh, sirada yero ɗo men yakkutige mhm. aɓe sirada yero ɗo daham wax bu bare yëpp ku sa morom nit ñoom xam wax bu bare bi yëpp la la la di lekk xaalis nit yi rek la mhm. di fenn di naqa dak su watala mhm. temps yi sax coow yu bare la wax yu bare la président Macky ni ñu ko mën a wax rek ñu bàyyi xel réew mi li doomu aadama bare loolu la rawaan yi bare li mhm. doomu aadama bare loolu la seytaane bare seytaane mooy nit guddi mhm. accident yi bare su nga génnee rawaan yi seytaane mhm. doomu adama yi nit guddi yi xeexente yi dafa bare si président su nga génnee rawaan yi nit guddi yi nga génne année bi nekk nuuxum bi nga xool ko année bi dafa dafa nekk ak jamono moo tax il nit yi dem ak xel di wax ak xel. Mhm. di doxan ak xel parce que bu daanaka di nga dugg sa sa bopp benn pax pour nga gënee du gënee la. wallaay wala ñu def ci de métti de. wallaay ngay wax. <coughs> moo tax tout à suñuy gën a ñu wax nit yi def leen sarax bi yàlla subhanahu wa taala séddale. Mhm. comme sànq ma la wax léegi ma ne ku bugg génne sa biir kër. Mhm. nga bindi waaw. trois fois. su fekkee ne jigéen la nga bindi waaw. quatre fois quatre fois. ay fenkat ñoo bare mhm. su la neexee mhm. bi ni waaw neef doomu adama neef pour lam am su ko yaa sa njaboot yëpp ma dem mhm. defal vingt jigéen ak góor motal ko tànn kële ani konoto mooy vingt pour kaaraange tamit dina la bay nga yeggale nga ñëwaat jox ma. <laughs> incha allahu rabbi jërëjëf soxna Kya Aidara Mboup ci leeral bu am solo boobu macha allah nee naa lii dafa neex parce que li muy wax daf ko maîtriser te doonul loo xam ne lu muy créer la waaye loo xamante ni wax dëgg yàlla lu mu tëdd la gis ko. jóg yendu ci ay fani fan saytu ko ba xam ni lii ak lii ak lii mooy li nga xam ne mooy li ko war a saafara ci li ko suñu borom woon ci xam-xamam mu daal di door a jóg génn wax ko te nee naa li ci neex mooy bu fekkoon da ko da ko da ko da ko wax benn yoon rek fara ci waaye loo xam ne bi mu koy wax yegg seegul te boobu ba tey buñ ko laajaatee mu revenir encore sur les mêmes paroles loolee dafa am solo kon nag li mu fi mujj joxe léegi ni mooy pour mucc ci accident yi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi terroriser réew mi ñu ngi terroriser askan wi kuy génnati sa buntu kër defal ñetti waaw boo dee góor mhm. boo dee jigéen defal ñeenti waaw mhm. wala nga def juróom-ñaar mhm. wala nga def juróom-ñeent wala bu fekkee yow ak njaboot gi yëpp ay génn nga def ñaar fukki waaw boo xoolee ku ku ku xamul lan mooy waaw waaw mooy mi ngi mel ni nga bind neuf bu tëdd. xaaral <laughs> hmm, ma bindal ko waaw neuf bu tëdd. donc loolu loolu loolu mooy waaw xamuñu xamuñu lan mooy waaw. ah borom xam-xam yi sàcckat yi sàcc leen waay. soxna <laughs> si am li wax. taalibe sëñ Babacar mi ngi noonu bi mooy waaw. waaw daal mi ngi noonu fi ne waaw moom mooy neuf bu tëdd la rek. waaw boo xoolee rek daanaka tuwaatkaal la. Mhm. nga xam ne boo ci defee. boo ci defee waaw secret bi beneen yoon dinaa ko may waxatuna. doo ko may te. kenn mënu ci dara. beneen yoon dina leen may waa secret bi. Mhm. incha allah incha am na solo jërëjëf soxna Kya Aidara ci leeral bu am solo boobu waaye ba tey tamit Kya waxoon nga fi tamit wax dëgg yàlla géej gi ni muy dee waxoon nga fi boo joxoon fi suñu mbokku lébu yi. Mhm. ne leen fi ne boobu ba léegi ñoom it ñu ngi wax na te te dafa mel ni boole woo leen ci yëf yi. ba nga waxoon fi ne euh, nañu ku kenn ku ci nekk na nga ñeenti jën yu weex. Mhm. mu saraxe ko. dama bëgg nga dikkaat ci maa ngi nuyu bu baax a baax sama sama sama jëwriñ ja sama sang ba màgget fa mu ne mm. no koy nuyu di ko siyaare bu baax a baax moom it di ko ñaanal sama borom defal ko jàmm dikkaatal ñu ci waaw ci ci ci ñeenti jën yi ak suñu mbokk lébu yi ñeenti jën yi weex yi ñu joxe ñu fi tolof tolof yu mbiri dégg yi laam ne may fi ma simmi ko ba talaa mm-hmm. nga xam ma sol yëre sutura la mm-hmm. simmi ko ba set nga jël sa ñeenti jën bu mm-hmm. ko sa biir kër tolof tolof bi nga nekk yaa ko xam sa diggante ak sa borom. wallaahi jafe-jafe bi nga nekk yaa ko xam sa diggante ak sa borom. Mhm. nga teg ko ñaan sa soxla yëpp su nga paree sol sa yéen ñaan si. Mhm. jël sa jën bi génn ko sa ma ne année bi. Mhm. ndax am ñoom ne ne si ñoom ñoom ne ne nit ñi ngi leen piraté saa yu ñu piraté sonn kii. wallaahi ndeysaan ñoom ñooy pirate yu mag yi kon. wax naa ko. kiri na dara ba nani ko ani maram ko awala jigila witala sumasina dama ne fu ma doone mhm. xam-xam foofu la mu baaxee wax ma sénégalais am xam-xam de mhm. parce que nit il faut nga wax ñu am dëgg-dëgg dëgg-dëgg surtout parce que dañoo mën a mélanger nit ak fen mhm. ma génne tam si Modou fi janjabate kala jula saw ngi be maka dafara jëli ke kangara jëli ke sam sima jëli xam-xam foofu la mu baaxee dama ne Papa Talla yu weex yi su ngeen ko sarax ba pare génne ko nga dem sarax ko benn ci bi ci ku amul dara géej bi nawet bi dina neex mhm. mais dina yàq mhm. nawetu ren bi dina yàq lu bari parce tam géej bi tam ñu mhm. si téye seen doom yi day dina bari si géej bi tam bu bari si loolu weesu na kaaraange oto yi wax naa la ko sànq suratu yaasin ñu ko bind benn fois dina meew piir mhm. def ko si raxas ko tur mu fanaan ñi am oto loolu ñoo ko moom noonu ñu am oto ak chauffeur yi nga xam dañoo yor oto merci mhm. gàllaaj bi loolu may naa leen ko si yàlla tax ñu wutu ko doon bind suratu yaasin benn rek suratu mhm, tam ñu wutu suratu yaasin bind ko def ko benn téere. Mm-hmm. du ko si batakaar bi. ok bi. waaw su def nañ accident. Mm-hmm. ñu ñëw wax Fapal la soo nekkee da xamul dara tout. tout. Oh. xamul tous. lay <laughs> lay la daa may na ne ko la daa jërëjëf soxna Kya daa mel ni kon nag fi mu toll nii moom yëf yaa ngay bëgg a yegg si ca ba mm-hmm. soxna Kya ay dara boobu nee na. képp koo xam ne bëgg ngaa mucc ci accident yi xam ne mi ngi terroriser àdduna. demal nga bind lu sóoratul yaasin nga xooj ko ci siwa ndox ut meew pur nga jaxase ko ak moom sotti ko ci sa oto sangee ko raxasee ko sa oto bàyyi ko mu fanaan ci ba bërsët boo xëyee nga ut ndox normal yàlla ni ko wa ilaa nga dem uti ji ku la bindal sóoratul yaasin nga def ko téere dugal ko takk ko ci biir oto bi nee bu keroog boo na ne ci biir oto bi rek. waaw kay. nee na ko ci def ñu ne amu ni boo accidenté boo see ñëwal ba ci moom. Mhm. wala nga ñëw woo ma man mii di def émission di présenté ba ci borom moto yi. Mhm. kii yaa bul tax borom jakarta yi nga xam ne dañuy xaru ci kaw tali def ko ba pare bu ñoom moom dañuy xaru moom borom jakarta yi bu leen ci boole. may leen ko bu ñu xaru. Hmm. Ah, kon baax na kon boole nañ ci borom moto yeeg borom jakarta yeeg yooyu ndax borom càq-càq yi ndax càq-càq yi hmm. dañoo xew ci réew mi. càq-càq yi tam Papa ko ñoom tamit waaye nañ def nank ci tali bi ndax tali bi. nañ def nànk fa ñu def nànk parce que am na rawaani. Hmm. am na seetaane. Hmm. am na nit yu guddi. ah waaw accident yu bare nit yu guddi ñooy tëb. ah dëgg dëgg. yu bare tam rawaan yi ñu ko def rawaan seetaane. nit yu hmm. julli. am na solo loolu macha allah rabbi soxna kii Aïdara boobu yal na yàlla barkeel te fay la te gën a dëgëral taxawaay bi ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam barkeel sa sang waaye kii adduma yam foofu coowal suuf dafa bëri ci lan nga ñu ciy waxaat tamit taw am na loo ci dundoon tamit. coow suuf bi jox naa ko nit yi bari tout le temps suy ma wax ko seen wax di jooy de ma ne. Mhm. sa kër du duñ taal añ. ma mhm. ne dinañ añ kër ma ne fexe ñu taal añ si mat bu ñu taal añ si kër yi. ñu taal añ si matt yi. wala si kër yi. wala ci kër yi. suñu paree bàyyi gaz yi. waaw non non bu ñu bàyyi gaz. suñu ah. paree taal añ ba pare nga dem gas. mus nañ ko jox man ak yow fii. am na benn waa sa kilifa sa dem na sa bokk ma xamante ak ma. ba mu mhm. def ma geste. daa man ma wax tudd nit. seen mhm. leneen la baaxul. Mhm. parce que Papa Talla xam-xam sutura la. wallaay ndeysaan. yàlla subhanahu wa taala su la génnee sa sutura du baax. xam-xam sutura la biir la. kenn du ko xaale kenn du ko génnee. du defal na ko nii du jox na ma ko nii déedéet. junj baax na. waaw kay junj doy na borom xel léegi nga nga gas ba fii. Malien nee na sibiri ñekkale. moo gas ba fii. Mhm. fekk na ko kooku togg na ba pare nga ñëw jël eh, xal bi. Mhm. sotti ko si pax bi nga jël nga wax sa soxla yëpp sotti ko fay cooy fay fitne coow kër boobu su am na waat nga ñëw fit ma nga ne soxna kii xamul yi amoon nga xam ne da gas sa loxo ba yegg ci conc bi. si sibiri ñekkale. mooy conc bi. conc bi am na secret. Mhm. nga xam loxo bi baax na. loxo bi baaxu su nga bëgg def lu bon bi moo gaaw. Eh? man na eh, portal la ñu bàyyi <laughs> su nga def lu baax jëlal bi. day jox mais su nga bëgg def nit léegi bu lu bon bon. Mm-hmm. bala après midi ñu wax la. du di daan na ko. Mm-hmm. def koy loxo bi. ku tànk bi. loolu duñ ko wax duñ ko bàyyi beneen yoon parce que dinañ dem dóor nit leen sax seen xaalis. non mais kii yaa xam nga da nga dugg da nga dugg fu doy waa ndax fi mu ne réew mi dafa bëri ñoo xam ne fi ñu toog mm-hmm. ñi nga xalaat ni dañ leen dañ leen a sëriñtu ñi dañ leen a def ay yu bo ñi dañ leen a kort ñi dañ leen a dañ leen a te fi mu toll nii te loolu fi mu ne nii ñi am problème boobu dafa bëri fi mu nii moo tax bi nga tuggee foofu man sama xel dafa am ci ñu mu ñëw mm-hmm. maa ngi nuyu ñu maa ngi nuyu sama xarit yu bëree bëri waaye rawatina kenn su ma ko tee mm-hmm. jonn may sa waali su ma ko waxee moom xam na man xam naa te dinaa fexe ba ngeen gisante yéen ñaar mm-hmm. euh, nit ñi sëriñ si ñi ngi def nit ñi yu doy waar yu bon yoo xamante ne man jàpp naa ne sëriñ warul def loolu doomu aadama ndax sëriñ moom lu baax rek la war a xëttewoo mais bu demee ba bi muy def loo xam ne contraire lu baax la man damay wax ni kooku du xam-xam dañoo ko doon. Mhm. après delluwaat dem jàng ko. Mhm. surtout man sama sëriñ mi ngi am cent ans et quelque du xale. dañoo doon delluwaat dem jàng ko. da xam fii di nga gis nit yi jànguma ko dama mhm. ko doon rek fen la xam-xam da nga war a doon. dafa la jàng delluwaat dem jàng ko. gëstuwaat. maanaam nga jàng premier deuxième ba dixième. affaire bi di gën a kawe. nga gën a xam fi nga teg sa tànk ak fi nga war a teg sa tànk. da am na ñi borom xam-xam ñoom lu bon lañ xam. Mhm. am na ñeneen seen xamuñ tous wax rek lañ xam. Mhm. da xam borom xam-xam tout à da war a préparer. surtout toog. Mhm. clients yi tamit dañoo sob fu nekk lañ dem. am na am na ñu mun. am na ñu mun am nañ dem. am duñu dëmm am nay trine mais am na benn vocal yi ma ñu ne. Mhm. fekk na maa ngi sama naqari sama waajur génne. sëriñ lekk xaalis nit mu ne baal maa ko def defal na xam ma su ma xamoon li li dina baax nii. Mhm. dinaa dugg sama xamuma ko lii la mu defoon noonu. maa ngi jéggalu waaye su ma nee nit ki jéggalu delloo ko xaalisam. ah dëgg-dëgg. <laughs> mais tey xaalis yi après ne maa ngi jéggalu. Mhm. kooku woo moom ne sax na kenn ne dafa day jéggalu ma ne de et pourtant sëriñ boobu moo gën a rëy laamin si internet bi yëpp. su ma ko gisee waaraatay métti métti yàlla nee na ni yenentu nee na nii yàlla nee ni yenentu nee na nii mi ngi rey nit yi si internet bi. kooku de xam naa kan la est-ce que xamuma ne ma waxtuñu kenn ku ko wax bi wax ko sa bopp yàqu ni yaay borom man xam naa kan la moom. après yàlla nee na ni yenentu nee na nii yàlla nee na ni yenentu nee na nii loolu lañ dóoru nit yi benn soxna kii ay daram bu mu indi xobam teg ko fii. bu mhm. ma taalee xob mooy lan xob mooy doomu aadama. Mhm. nit ki mun na gis que léegi-léegi mu feebar. Mhm. bu génn àdduna. ñu ñëw wax la du sonn naa dafa feebar. Mhm. kaay ñu dem du sonn na nga dem xool su nga xool ba pare sa pexe yi mun na ko nga dugg si àll bi jënd sa béy bu ñuul. ba mhm. jënd sa benn melon bu ñuul. ba jënd sa benn nak mu ñuul ñaan si dem si buy bi bala nga pare nak bi dee kenn laal ko nga ñibbi si nga fekk borom jóg na. baax ko baax. chaque jour nit ñi ngi sànni seen gudd fan si xob. xob mooy lan. doomu aadama lan la du suuf ak ndox la mhm. xob lan la du suuf ak ndox la doomu aadama jëmm moom xob la mhm. nit ki dee dee dama xol ci kawam dee sax xob mhm. xob papa papa taala su ma ko xamee dina faj ay fenkat yi xamuñu xob xamutuñu xob xamu xob mooy lan ñun soo nag yaa sax duñu ko wax lekkuñu xaalis kenn dóoruñu kenn ku am vocal ñu ne soo nekk yow mos na lekk sama xaalis mhm. ou bien ku am vocal soo nekk yow mos na euh, sàcc sama xaalis mhm. ou bien lekk ko ni moo ko defu ko mhm. dama teg ko si internet maa la ko may loolu de moo leer moom neuf ans bientôt dix ans waxuma neuf ans dix ans laa commencé xam bi de xam-xam maa ngi si plus de trente ans xam naa ma ko génnee sama âge de des man xam naa bi ma la wax ba taala yiri kemee la lii xam-xam la la wax de wax ma wax ma ne soo sax gis ma waxtaan maa ne maa ngi waxtaan ak borom xam-xam yi ak borom xel yu sell yi waxuma ñu amul xam-xam mhm. remorque camion lañ indi fi Kobataat mhm. caaxaan di ko dugg fi Sénégal xam-xam moo ko dugg mhm. garab xolo fi li kese moo des alhamdulilah ñu ngi jaay ñu ngi liggéey corté bëgg dugg si nit ñu ngi ko dindi ñu di def la lu bon ñu ko dindi si kàttum yàlla ni yàlla def mu ngi ko de ni doomu adama ak doomu adama daf ñu ko dindi. macha allah. mais bu a taalaa yow journaliste la macha allah kàcce naa la ma am na journaliste Serigne tamit <laughs> ñoom tam seen vocal mi ngi dina man dina leen teg du yàgg. Eh, pour àdduna xam ko. ñoom journaliste Serigne tamit am na kenn ki wax na ma mu ne soxna kii yow ak duulaa wóor ñeneen wóoruma leen moo ko yónni sama vocal yow ak duulaa wóor ñeneen yëpp wóoruma leen. Eh? dinaa ko teg àdduna dégg ko. ñi ngi nekk fi di ànd ak sëriñ si xamuñu tous di dóorante nit yi. Mhm. di lekk seen alal. Mhm. après ngeen toog nga ne man Sénégal la man sénégalais souvent man de laaj ka yaa quoi. di nga gis benn nit Papa Talla mi ngi sonn ba bugg dee. Mhm. mi ngi feebar ba bugg comme léegi léegi ki la woon ni. mi ngi ki ma woon léegi nga ko di ko. waaw ah. mbokkam ñoo ko fay mënu ko fay. parce que du dox na Sénégal yëpp. ñu lekk xaalisam. il faut mu dem si benn mbokkam mu jàppale ko fay ko. waxtaan. dinaa la dugal bi mag il faut nga def c'est obligé mhm. suba di nga gis benn nit sax si sa gis mhm. ki am na xaalis mais amul confiance si sëriñ mhm. day wax la moitié laa la jox su fekkee ne wóorul na sa bopp fajuma ma jox la benn moitié jamono bale bala sama papa génn àdduna yoo xam na papa la am na ku ma may hectare fu bale may ma hectare lay ndeysaan mi ngi feebar wandul wandul na Sénégal njaay yëpp ki ñii ne ne corté fekk na du dara dafa am feebar nekk si yaramam mi ngi sonn bopp dama wax Sénégalais ñu ubbi seen bët. Mhm. borom xam-xam amatul ndax nan lañu am rëy laa wax wax bu rëy. Mhm. warante métti. Mhm. jël alal askan bi di fen di du di jaxase di wax wax bu rëy. di di ànd ak animateurs yi. di ànd ak journalistes yi. di fen rek di dóor rek. dama taal il faut ñu dagg loolu. surtout yéen journalistes da ngeen war a def beneen concours. ku bokk yéen ñu ngi yàq seen liggéey. jamono bale weer sa sax ci ñu ne Serigne du yóbbu na Serigne du police Serigne du yóbbu na Serigne du man dama yóbbu beneen Serigne police. Mm-hmm. te moo tax su nga am xam-xam ku la ko defal caw ko su nga mun a caw ko jëlee sa baaraam bi bu doon la borom xam-xam du ko si bëttam mu dem si yaay laajal ko beneen yoon du ko def. wallaay ndeysaan <laughs> jërëjëf euh, soxna Kya Aidara Mbuub ci leeral bu am solo boobu noonu macha allah mu doon lu doy waar waaye ni ko waxee léegi Kya gannaaw yàlla dafa dogal réew mi moom kenn mënu ko contrôler kenn mënu koo gérer. ni ñuy def mooy fexe man sama classe gi man fexe ba am fu ak fayda gu toll ni man ku may seeti ji di def ak yow émission mm-hmm. day doon ku ma xam mm-hmm. day doon koo xamante ni tam wax dëgg yàlla foo mën a nekk ci àdduna ba ma jógee xam fi ma lay fekk mooy fan waaye koo xam ne ana man ana yow rek mun naa ah. def ak yow émission dëgg rek man moom noonu laa koy loolu lañ def di di ne xale ku dem fe nga mm-hmm. fay benn deux cent nga fay benn trois cent il nga dóor il faut nga dóor client ah fu nga dóor nga génne sa 200 fu nga jur nga génne sa 150 fu nga jur nga génne sa 300000. Mhm. man sama wax neexul. Mhm. parce que man ne ma dama bëgg woon askan bi chaque jour. lii moo nekk lii moo am. Mhm. ubbi leen seen bet macha allah yore nga nay xolo am na ñu commencé su suuf set bi. ñoom ay seetkat la seen seet mokkul sax. am na ñu commencé si tapp bi lañ toggoon. Mhm. am na yi si mat lañ toggoon. Mhm. dama xool léegi ñoom fi ñu toogee. si chaise ay photo yi ay <laughs> photo yi <laughs> yéen ngeen liggéey bon nii. wallaay ndeysaan ñoom ñu nekk di dóor rek fi ne di rey bi yow joxul ko sa yar. Mhm. jox ko sa papa. jox ko sa rak. jox ko sa jabar joxu ko kenn. jox ko ngir ba gis benn sëriñ rek. Mhm. nekk si yeneen tënd bi ratatata mun na neex laami. nga mhm. jël sa alal yëpp jox ko. wala mu wan laay affaire yu mystique yooyu. nga ne kii mooy waay ay ay kumañaxa kumañaxa eh, eh, eh, mooy. mooy mooy ñu raglu yi quoi. non mooy affaire bi ñu wax si wolof bi loolu du xam-xam si lu <laughs> mooy euh, magie. ok magie ak bare si Sénégal. te te nga toog rek mu ne tël tël génnee ren yi nga ne ah sëriñ bi. nga mhm. demee li lam génne. amul tuus sëriñ bi mënu faj même benn bopp métti. Ah, fekk na sëriñ Mbob balan ma mi ngi ko rey imarit mi ngi ko rey. ndax toogaay mu yàgg metti mbopp metti mi ngi ko rey tappale mi ngi ko rey warante yi metti si internet bi sonal dérange nit lekk na ak scan yëpp seen xaalis chaque jour mhm. vocal ñu ngi fi chaque jour man sax dem na wax na ko benn waay ma ne mhm. bu leen mën dugg seen wax mhm. parce que dama fone sax ñoom ñoo am fula yéen amul fula parce que man soo nekkee ba ne ma teg sama dërëm sa loxo day leer comme bi dee ko am na solo jërëjëf soxna Kya Aïdara Mboup ñu njëkkanteeg waxtu bi ndax xam naa ni li ñu dese fi mu toll nii daanaka euh, bëriwul waaye fi ne xam nga Kya mm. da nga dugg fu garaaw muy ci garab yi man li may wax rek mooy nee naa leen mm, sëriñ si nga xamante ni wax dëgg yàlla ñi ngi bëgg a faj doomu aadama yi ci ay garab mm. luñ ci maîtriser wul man xam naa ni buñ ñëwee gisee ak soxna Kya mm-hmm. soxna Kya dina leen jaay ay garab mm-hmm. waaye dina leen teg ci yoon woo xamante ni bu ñu demee danañ ci am naam ndax soxla Kya koo ko xam-xam ne mm-hmm. nitu kese la nit ku mm-hmm. naturel la nit ku am yërmande la mm-hmm. nit koo xam ne li ma yor du ko boole ak ku yàlla bi bind loolu moom wér na ñu loolu man wér na ma wér na ñiy seetaan télé bi ndax gis nañ doomu aadama yoo xam ne dañuy jógee fu ne ñëw ba fii war a faju duñu yor lu nu fajoo nga yëkkat sa alal jox leen jël ay garab jox leen. Mm. ñuy ñibbi nga yëkkati paas bu leen yóbbu jox leen. Mm. man loolu fekkee naa kenn nettaliwu ma. Mm. kon wet googu moom kon war ñoo mën a waslu ak ñoom sëriñ si. ñi nga xam ne dañu bëgg a faj nit ñi. nañ waslu ak ñoom jënd si ay garab ci yow. Mm-hmm. waaye buñ jënd see ba noppi mm-hmm. buñ la rusa laaj secret boo xamante ne mooy ànd ak garab yi ngir ñu mën a waaj garab yi. Mm-hmm. ba pare bokk na ci tiyaa man fi ma bëgg ñu jeexale émission bi. mooy gannaaw garab yi ndax garab yi moom nee naa leen. nañ daw te ñëw li fi des ba ne wut de da a dellu waaye ci wàllu seet laa bëggoon ngeen di mel lan mooy njëriñu seet ak seet lan lay defal doomu aadama bi moom man laa bëggoon ñu waxtaan ci jeexale ko suñu jotaay tey bii. papa Talla euh, su nga nee man fajukat la. Mhm. dafa nga mën a seet. surtout comme wax naa ko benn jour ma ne soo nekk yaa mu ko commencé man de seet mel ni man dinañ liggéey liggéey fétiche. Mhm. dama amoon ku ngëree ja frère Toxafe Blanc. Mhm. loolu yëpp dama ko amoon. da daxam jamono yi ma amoon fétiche fekkee na jamono boobu léegi am na ko sëriñ bare doon na leen <laughs> wallaay lay lu leer ngay wax. heure eh, bi fekk na wax bi jeex na match bi jeex na. mais instant bi man de set set Papatar laa du caaxaan nit ki day ñëw sa kër salaamaaleykum man na Papatar laa maaleykum salaam mais du ko questionné de. Mhm. salaamaaleykum Pato noo tudd noo sant ñaataat la nga yore nga jël nga di xool ràmmul. Mhm, ràmmul. nga jël ndox nga xool. ba am na éventail yi tey jour am nañ ñu xool am na xale ñu xool hmm. su nga ko xool ba pare set day gën a rawaan yaa nit ban rawaan lam yore hmm. ban biddoom lam yore hmm. set da tax nit ki fu mu war a jëme ak yow day neex bu du neex set da tax nit ki bala nga dugg sa loxo si mbiram mun na ba munuma parce que client day ñëw si am na client day war a bay rek kese laa soxla ma ne munuma ko def ma xool ba pare consultation bi c'est obligatoire mu ne ah man bëgguma seen man ne waa dama feneen parce que mënu ma la defar bayra mhm. bayra façon dafa bare am na bu ndaw am na bu mag mhm. il faut nga xool ba pare kii ban jaar nit la mhm. nga door a dugg sa loxo si mbir yow mënul bàyyi ko ko xam mais temps yi Sénégal seetkat yu ay fajkat la chaque jour ma wax si internet bi ma ne def leen benn concours si liggéey bi mais dañoo fane comme Sonatel dafa soxor moom mi ngi liggéey am wërsëgam bugg keneen mu am non non du loolu mhm. man dama bëgg naxante bi mu jeex Sénégal mhm. dama bëgg dool bi mu jeex Sénégal am na ñi amuñu dërëm tuuti bu ñu yore jox nañ ko sëriñ si ba mu jeex mhm. fajuñu fajuntuñu sëriñ su nga ne man am na xam-xam da nga war matériel papa taala man dama wuruus ma sama xob yi jeex na di toog fii di naxante nit lekk seen xaalis amul garab amul dara eh, ma ne ku ma si lekk xaalisam man maa ko wax tey leen ma si internet comme li ngeen teg ñeneen ñi. du ma jël alal kenn du jox ko internet bi na ne. Mhm. baal ak dama foog ne su ma la jox bi dee baax xalaat mhm. ni ma mun naa def ni ma mun du ma ko laal. Mhm. du ko jege si sax. surtout ma dem ma dem. feebar yi bari na ba taala. humeur ki bari naa temps yi mu ngi lëmm si àdduna bi ak mauvais alerte. humeur ki bi nekk ci biir. ak immeuble bi nekk ci biti. internet et voilà dafa am na ñu déggul français. Mhm. moo tax tout ñu ko expliquer si wolof. Mhm. interne ak externe am na bi nekk ci biir am na bi nekk ci biti. Mhm. am na bi def dëtt dëtt am na bi gën a deret. am na bi def picc bu ndaw am na bi juddu si ginnaaw. immeuble ki ni mu doon ñun di faj ko si kàttum yàlla. am na tamit mauvais alerte Papa Talla. dafa bare. jamono bi daal la wax. ñaar yi mauvais alerte immeuble ki tension diabète euh, fourdimi fourdimi lan lañ ko si wolof su nga lekk du gaaw a digérer lan lañ ko si wolof euh, mm-hmm. problème estomac problème digestion mm-hmm. loolu bari na temps yi estomac yooyu yëpp ñun di faj ko mm-hmm. à travers plante yi plante yi nekk nii même ci biir Mali am na plante yi nekk fii mooy ladon yëri ka mel ladon amul Mali ok il faut nga dem àll bi di dajale dajale dajale dajale dajale teg hmm? nga war a weer indi ko tout le temps ma waxu Moussa tegal ma sama vidéo yi ma dem àll bi pour nit yi xam soxna ak yàlla mu daj. Mhm. no bii yoon dañuy ànd ak yow dem ba Mali. incha allah si kàttanu yàlla garab yi nekk si biir néeg bi du caaxaan ma leen indi. Mhm, mhm. am na garab yi xale bu ndaw moo ko dindi. am na garab dimanche si guddi lañ ko dindi. am na garab jeudi si guddi lañ ko dindi. am na garab di nga simi ko ba set. nord sud et nga dem dindi ko ba mu set. Oh. indi ko. am na garab surtout nit ku sànni nit korte mhm. ba nit yaramam dafa tilim mhm. ba nit yaramam dafa diis mhm. ba nit am rawaan yi yooyu am nit am fo dof feebar dof yooyu seen garab yëpp ñu ngi fii dama bëgg wax waa àdduna rek xam-xam Sénégal doy na waar sëriñ ñoo gën a ëpp population ah sëriñ bi instant bi nag sëriñ ñoo gën a bare population <laughs> ndeysaan lu doy waar ngay wax nag fi tamit lu doy waar. ñun jamono yi ñu dugg si internet Papa Talla dama xool. Mhm. jamono boobu léegi du benn. déedéet. am nañu lu nekk si. Mhm. adduna yëpp xamu si. Mhm. mais ñu dugg si léegi ñu am benn 1000 francs 10 000 francs 500 mosuñu ko depuis juddu na mosuñu ko téye seen loxo. dañoo def comme ku dof comme ku jaxaru. nekk si internet bi raat raat raat raat ah. série pour man ma gëm la nga dem toog benn deux mois trois mois quatre mois bu lal internet bu dem TikTok mhm. ñu ngi amer des jurés des gens ñu ngi fatigué les jurés des gens mhm. amuñu xam-xam amuñu xam-xam mhm. rëy làmmiñ mun a tonto mun na wax waxu diisi war a tey metti man xam suba man la Serigne Sénégal ay waratukat yi la ou bien ay fajukat yi la ou bien ay taasukat yi la ñu ñoo jox taasukat yi woon <laughs> ay ustaas lañ quoi ay ustaas yi la ustaas yëpp ay Serigne la jërëjëf soxna ki ay dara boobu macha allah am na solo am na solo lool macha allah wax dëgg yàlla moom li tax fi ne dañuy namm jotaayam ndax ni mu ko sentir nii la koy waxee ni mu ko yëgee nii la koy waxee nit ñi ñu ñu xam Pataara sonn nañ mm-hmm. grippe bu golof la ni lii mooy grippe bu golof ku buggul sa jëkkër mu takk ñaari ñaari eh? si force Pataara yaa ngi yàq <laughs> émission bi yaa ngi yàq émission bi yaa ngi yàq jotaay bi yaa ngi yàq jotaay bi ko si buy ba mu sës <laughs> allah la duba ba àddina tukki waa ku tam bu am tolof tolof mbir yi déggale liggéey bon su nga ñëw fii patron yi ñu am si seen service ñu leen dàq liggéey bi marché tul ñëw leen fii birigi wala mi ngi nii bi leen daj ba mu sës wax bi jeex na voilà am nañ tamit dabal la karina il faut moo ko si bambara tam. Mhm. yeggale ko si. ci wolof nii demal jugu kër yi la nii def liggéey bon yi yeewu suba teel problème puuj problème estomac yi ou ñu ne sànni corté yow amul xam-xam amul dara ñëw bu voir son ak yow sëriñ bi laa wax yow kat bi yow laa wax amul xam-xam dara su nga def émission ba nga pare sa bopp yi di métti sa yaram di métti yow mënu def dara même client yi tàllu leen su nga ku nga jël xaalisam nga dem noos ko après nga jël beneen tam ñëwal fii ma jox la bi bisimilah ku tala bi di lool bii tam tànk yaa ngi ko naan nit ki mu sànni la corté ba mu gis la ku la def lu bon mu tëb si kawam hmm? amul midi quatorze heures euh, bii moom xanaa dañu ciy jox ñu yóbbaale moom ku la def lu bon tigi ñee soo buguri ni kaburu buguri koroni clé bii fayan fa ni bayan fa loolu duma ko wax si wolof pirate yi dafa bare borom xam-xam la ko si bambara xam ne bi tuuti sax bi gi noonu garab yëpp ñun de lekk li leen jox loolu lañ lekk loolu lañ faju loolu lañ faju suñu doom yi mhm. loolu lañ faju suñu rakk yi mi ngi noonu papa taala mhm. tey maa ngi may xam-xam Moussa bul mere bii tonso la tonso moo nekk nii jugo picc yëpp day judd mhm. moom du nen mais day judd mais du nen su judd naa ne doom bi day commencé tef tef tef tef ñeneen picc ñoom day juddu day def nen bi may na ko àdduna jox ma ko sëriñ dóorkat yi tey xam-xam may kese la tey sama xol bi dafa sedd buy comme glace ngeen dem def ko si benn bool mhm. ba mu xom su xëm na xaaral ma génn bokk pour mu xam ban la ba mu xëm su xëm na nga jël euh, dóorkaay bi dóor ba ba dëbb su dëbb na nga tib tuuti teg ko sa laamin ngani yallah subahana taala toon so e denwolo togum na ama fanda alay ka denndogani fele yallah o yommanima def ko doknan inchallah même fekke na benn doom la suuf moo nekk bi mooy ban njugu toon suur bopp may na ko si yàlla may na ko benn client yàggul mu ne soo nag yaa may ko ñeneen ñi man amul problème dina ko may mais jox ma ko Serigne Dóorkat yi ba parce que ñeneen may Serigne Dóorkat day dem jëli ko def ko jox ko client yi boobu soo ma ne ñi soxla hmm. ñii seen trompe dagg na bu hmm. leen ko jëriñ bu leen jëriñ waaw mu ngi noonu bi may na leen ko yéen tam dégg hmm. am na nuuxu sebe dinañ ñëw bindi nuuxu Ah, ramundi yala yàlla wa ta'ala bini batala kira ke mesa saba ye percent tudu mi ci bila mhm. ramun mo fen yena tudu mhm. amna ñu neena pettaw du pettaw yalla subhanahu wa ta'ala yoni jibril ñu mhm. ne tib yëpp yëpp benn rek moo des mais nuuxum semaine bi ma leen ko bindi mi ngi noonu jox ma ko Serigne Ndour Kati jox ma ko ñu am ñaanu waajur yi ñu am ñaanu papa jox ma ko. Mhm. jox ñu am ñaanu waajur yi bindi leen ko comme ni ma ko bindi si nen bi. Mhm. su ngeen ko bindi nii comme si nen bi ngeen baxal ko lekk ko xolet bi ngeen sànni ko tikital bi ou bien ngeen boy kërin bi ba mu boyee. ngeen teg ko si ba mu toj fekk del seen gémmiñ ndox bi fay ko coow yi ñu nekk si prison bi. ba ñuy nekk si tolof tolof bi ba ñuy nekk si mbiri degré yi ba ñuy nekk si benn projet mu mënu socceeku lii may naa leen ko ak ni su ma ko mun a def chaque jour ba li nga bëgg mu socceeku su socceeku nga ko taala soo nekk xamul dara mu arrêté jox ko yëf yi si internet mm-hmm. may naa leen ko si yàlla tax bisimilah dana ñëw ñu ko jeex na jërëjëf soxna Kya Aidara Mboup ci leeral bu am solo bi waaye ci barke bi nga xamante ni wane nga ko tey ji ci mboolem mi nga xamante ni wax dëgg yàlla yaa ngi koy yor di ko jëfandikoo waaye di ci jëriñ askan wi di ci jëriñ tam doomu aadama yi macha allah yal na yàlla barkeel te a dëgëral taxawaay te gën a guddal fan wi euh, gannaaw fi mu ne moom waxtu yu xoj ñun ndax fi ne tey moom defe naa ne romb nañ une heure de temps di dem mm-hmm. waaye nag xëy na namante woon ak gëjoon laa gisante ñu mel noonu moo ko waral kaddu gu mujj gi tey lan lay doon ci jotaay bi tey macha allah ah, kaddu mu mujj bi tey mooy lan Papa Talla waxtaan waa àdduna yi sëriñ si ñu bàyyi naxante bi chaque jour ñu ci di la woo yónni la vocal du lekk na sama xaalis du lekk na sama xaalis journaliste ñu liggéey ak sëriñ si du lekk na sama xaalis du lekk na sama xaalis sëriñ si xam ne mënuma faju bi bàyyi ko ba ko lam tudd li nga mun nga yem si nga def àdduna bi di neex yàlla subhaana taala bindu nit benn nit nga xam yëpp mm-hmm. su loolu la du bindi jigéen bindi góor su lool la du bindi Amérique bindi France bindi Mali mm-hmm. yàlla dafa bindi wutew mm-hmm. wane nit ki benn nit munu munu yëpp ñun nii munu wax wa àdduna garab yi indi fi Sénégal dañu sonn si ba mu dugg fii benn dërëm kenn dugg si suñu ñàkk la suñu alal du benn million du ñaari million du ñetti million barke mhm. moo tax garab yi dugg fii Sénégal suñu coono kese la remarque garab ki ko indi fi pendant trois mois mhm. garab ne fes mhm. nga xam kooku liggéey muy marché macha allah malien nee ne bala nga marché keneen liggéey marché sa bos ba pare sa bos ba pare dëggantaan bala ngay wax ñëw leen ko sa bos ba pare loolu may xam-xam ñu internet bi ñu ko bàyyi tout nanga toujours un mois deux mois ñu dem toog ni ma def ñu ñëwaat dugg ñu ko suñu ko def du baax ci la ñuy dund moo tax si loolu dunu si dëgg papatala bu lu dugg si ripa mhm. xob yi nekk ni soxna Tuya saxu ko yaayam saxu ko papam saxu ko mhm. yàlla subhanahu wa taala moo ko sax nee ne ko ko mun di nga mën a faj lu bari mhm. ko ko munu tañu mënu faj dara lii dañoo ko doon sàccuñu ko foruñu ko xam-xam bu wër la su loolu weesu na dama bëgg nit ñi respecté seen waa ñaari waajur yi tabatalla ñu may seen ñaari waajur yi respect ak teggin tabatalla day gaaw naa day gaaw na dama bëgg wax adduna bi yëpp ñu ñaanal sama papa bu baax bi. incha allah rabbi ñu bu baax bi. yàlla yóbbu ko adduna fi daw si. leeral bàmbeelam bi. baal ko bàkkaaram yëpp. si dara jàppul ko ma xam loolu laa maa ngi nuyu tam borom kër. sono na si su ma yooxoo mu ne kii yaa su ma yooxoo man nan laa def ma dëgg man nekkuma fii yaa ngi yooxoo sax yu bàyyi yooxoo mhm. loolu lii dafa bokk si ñun mhm. dund ak dee la di ma dalal di ma wax chaque jour mhm. ba ma xam lii réalité la mhm. mais su fekkee ne ñam si mhm. du du xam méttati dee mais su nga ñam si di nga xam méttati dee loolu lañ bëgg wax wa àdduna humeur ki am na folie mentale am na cortège ni ñu la ko sànni sànni su nga ñëw ñu dindi la ko cortège ni ñu la ko xam nga ñun ñu dindi na ñun ay chasseur la wax ma ñun ay féticheur la de ñun ay chasseur la ñun ay mm-hmm. donso la ku nga tigi ni soo tigi mm-hmm. garab bi ngeen soxla pour jënde mm-hmm. pour le moment mënuma jaay ki ngeen garab comme ñi jëndee pour dem faju parce que garab bareetul garab bi ma yore léegi pour sama client yi la ñi traitement yi ñi def traitement yi su ma ñëwaat dina def beneen annonce pour service yi ak ñeneen soxla parce que yi lekk fi bareetul bi pour client yi la ñi feebar ñu nekk tolof tolof ñu ni rawaan jàpp ñi mm-hmm. dem yu jàpp mm-hmm. ñi mënatul liggéey ñi nekk si yëpp def taxal ñi mm-hmm. amul kayit incha allah si kàttanu yàlla suñu ñëwee ñu faj eh, jëflante ak ñoom incha allah ñu ngi nuyu waa adduna bi yëpp macha allah ñu ngi nuyu kilifa bi ñu kilifa adday ñu ngi nuyu suñu yaay suñu papa yàlla xay ko àddina si baax bu baax ñu sama borom kër ñu yóbbu ba tàlla ñu Moussa bisimilah si am jërëjëf soxna Kya Aidara Mboup macha allah rabbi borom <laughs> Tamba Bambi Aïdara <laughs> sant ko gërëm koo ñaanal ko yàlla suñu borom dolli koo taxawu dolli guddal fan yi gën a wéral ay cëram ba mbooleem yéen yi nga xamante ne naalal na ko askan wi suñu borom defal ko ci lu kawe jotam ci daraja yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam barkeb mag ñi waaye rawatina barkeb Seydi Aboubacar si radiyallahu taala anu sangam bi waaye itam siyaarewaat bu baax a baax suñu waajur yi nga xam ne moo fi bàyyi koo dem ñaan yàlla sa tàbbal ko ci àddina gën a kawe fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge moom ak mbooleem waaye dawlu boo xam ne fekk na ko fa ak koo fa nar a fekk dara yi Seydina Muhammad waaye itam ñaanal a la bëgg-bëggam ak yéeneem ak mébétam suñu borom mi dul jeexal dara sañ lépp su ko defee mbooleem yitte boo xam ne am nañ ko rek te mu jëm ci faju cosaan ak aada ci ci li ñu

ay maqaama yalaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaama yalaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla dolli ay maqaama yalaaw